الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala ci xéewalug lislaam ak xéewalu ngëm yàlla di sant sunu borom tabaraka wa taala ci xéewalug sunna ak alquran di sant sunu borom tabaraka wa taala mi nu may jàmm ba nu mën a woor weer wi man koo naafila man cee def yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala santaane na ko sunu kem kattan noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala ci xéewalug ciid gi nga xam ne daf ñu ko defal mu doon màndargam ak dal nekk màndargam ngëm yàlla di seede ne sunu borom tabaraka wa taala moom yi kenn rekk la amul ku ñuy jaamu muy jariñ dara ku dul moom moo yeyoo ay tagg mooy kenn ka mooy ku kawe ka di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ab jaamam la di ndawam di xaritam sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain gannaaw loolu mbokk jullit yi bis bi mooy bisu iid di bisu korite iid nag sunu borom tabaraka wa taala daf koo defal jullit yi muy bis boo xam ne bisu mbégte la doon bis boo xam ne it jaam bi da cay jóge ci joxe farata joo xam ne daa bokk ci ponki lislaam sunu borom tabaraka wa taala def loo ko ko mu def ko ba àggal di ca génn mu xéewale ko nag bis boo xam ne jullit ya dañ caa war a daje feeñal nag seen mbégte ca bis boobee feeñal itam seenub tolluwaay ak seenub dayo ba képp ku leen war te doyadal doo leen doyadal sunu borom tabaraka wa taala dafa soññee lool ci ñu sant ko ci bis bii moo tax bi muy wax ne dafa farataal koor ci nit ñi bëggul ñu jàpp ne teg leen lu diis moo tax waaye daf leen a won ne dafa bëgg ngeen sant ko moo tax mu ne yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yàlla dafa bëgg defaral leen lu yomb waaye bëggul ngeen nekk ci ay jafe-jafe dafa bëgg ngeen woor ko ba mu mat moo tax mu ne wali tukmilu liddata wali tukabbiru llaha ala ma hadaakum dafa bëgg ngeen woor weer wi ba mu mat ngeen tudd yàlla kabbar ko wa laallakum tashkuruun ngeen man koy di sant itam fi ngeen toll kon iid ci boppam dafa nekk jaamu yàlla gu màgg goo xam ne dafay feeñal taar bi nga xam ne moom la lislaam am taar bi nga xam ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la am di feeñalit bennoog jullit yi loolu moo tax defandoo gi doon itam xéewal gu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala goo xam ne am na ci réew mi tey ñu defandoo ko mu doon moom it goo xam ne day feeñal jubluwaay bi nga xam ne lislaam bokk na ci yim jublu woon ci feet ci feet gi lislaam nag day diine ju màgg mbokki jullit yi yoo xam ne dafa am ay fondamentaux am ay ponk yoo xam ne yu màgg la yoo xam ne kenn sañu koo jalgati kenn sañu koo laal ponki lislaam yiñ xam ak ponki ngëm yàlla yi alxuraan ci boppam sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yooyu yépp dañoo am ay orma yoo xam ne dees koo war a jox ormaam ormay yonenti yàlla yi ormay jàkka yi yàlla yi ak fuñ mën di nekk rawatina jàkka yi sunu borom tabaraka wa taala jëlee nga xam ne moo nekk ca Makka ak ja nekk ca Madina ak ja nekk ca Quds yooyu mooy néegi yàlla yi gën a màgg ci kaw suuf warees koo màggal màggal ko nag daa bokk ci fondamentaux yi ngëm yàlla yi nga xam ne munta ñàkk gëm yàlla munta mat wala muy am sax te fekk nit ka màggalul yooyee ci ay xolam ci ab xolam ak ay jëfam ak ci ay waxam képp koo xam ne yaa ngi màggal yi yàlla màggal loola màndarga la ci ne sa ngëm yàlla day yow ngëm yàlla gu leer naññ la sa pas-pas day pas-pas bu jub la sa xol day xol bu am ngëm la bu tax bu ragal yàlla la moo tax borom bi ne wa man yuazim sha'air allahi fa innaha min taqwa al qulub képp koo xam ne yaa ngi màggal yi yàlla màggal nee na loolu day wane ne sa xol xol bu ragal yàlla la sikki sàkka ci yooyu nag wala doyadal ko wala suufeel ko loola moom safaanu ngëm yàlla la yàlla na nu ca sunu borom tabaraka wa taala musal loolu sikki sàkka la moo tax borom bi ne innama almuminuun alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartaabu ñi gëm daal ñii rekk la mooy ñi gëm yàllaa ko yonentam te sikki sàkka amul aw yoon jëm ci seen xol mbokki jullit yi ñu xam ne iid ci lislaam ay jaamu yàlla ak i sunna la yoo xam ne dañoo santaane ñu def ko waaye mu doon bis boo xam ne dañoo bëgg la ca gën a fës nekk bisu mbégte waxuñu nag bisu mbégte bokkul ak bisu po ak def yoo xam ne yu lislaam tere la lu bari ci nit yi dañuy tànn bisu feet feeti jullit yi moo xam kori la moo xam tabaski la def ko bisu caaxaanukaay boo xam ne dees cay def li yee yàlla tere te loola moom bokku ci dañoo bëgg mu doon mbégte moo xam ne dafay ànd ak sant yàlla ca nam ko bëggee màggal ko ci ay xéewalam bis la boo xam ne daa war a dindi njàqare yi dafa war a dindi tiitaange yi nekk ci xol yi bis la boo xam ne daa war a boole xol yi bëggante gi dox diggante jullit yi feeñ ndax kat jullit yi buum gi leen boole te doon nga gën a dëgër mooy buumu gëm yàlla gi ñu bokk gëm yàlla moo tax iit buñ ko waxee ci sun askan wi nun dafa nekk nag benn occasion bu mag a mag a mag ngir ñu mën a aaru ci lépp loo xam ne seytaane da koy indi ci diggante nit ak nit ngir di yàq seen diggante mën a aaru ci lépp loo xam ne luy yëngalum réew la wala muy indi fitna wala muy jur ak bañante wala ak noono lépp loo xam ne dafa jege fitna it dafa war a ñëw maasale ko mu jóg fa ndax kat buum gi nu boole dëgg dëgg dëgg te am solo mooy buumu ngëm yàlla muminuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamuun borom bi tabaraka wa taala nee na ñi gëm yàlla ñëpp ay bokk lañ ixwa sax mooy ñoo xam ne ay doomi ndey lañ ñu bokk ndey ak baay moo tax sunu borom tabaraka wa taala dafa digal jullit yi ne nañu bennoo nañu wattandiku tàqalikoo waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci alquran ak sunnata bu leen tàqalikoo wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min bacdi ma jaahum albayinat wa ulaika lahum adabun azim nee na na ngeen wattandiku ak tàqalikoo ak juuyoo gannaaw boo xamee ne borom bi tabaraka wa taala indil na leen lu leen mën a boole muy alquranul karim ak sunna yooyu rek nag moo mën a boole nit ñi borom bi tabaraka wa taala wattandikuloo nanu lépp loo xam ne day indi ak tàqalikoo ndax la cay jiitu mooy ñàkk a topp li yàlla santaane akub yonentam moo tax mu ne wa atiu allaha wa rasulahu wala tanazaau fa tafchalu wa tadhaba rixukum wasbiru inna allaha maa sabirin nee na na ngeen topp yàlla topp ab yonentam te wattandiku xëccoo ak xuloo ak ŋaayoo ndax su ngeen ko defee nee na seen mbir day yàqu maanaam da ngeen di échec te su ngeen échecgee seen kattan day dem kon tàqale mooy li gën a mën a néewal kattan jullit yi kon la leen di néewal kattan ci seen biir la nekk mbokk jullit yi am réew dafa aajowoo ay nit yu fa nekk ndax bépp béréb boo xam ne ay doomu aadama nekku fa di ko dundal di ko doxal foofa ab àll lay tudd wala manding wala weneen tur lañ koy jox waaye duñ ko jox am réew am réew nag bu ko yàlla bindee bind ay doomu aadama ñu dëkk fa doon ay jullit doon way gëm yàlla la am na lu bari lum leen boole su ko defee nag ñu yëg ne réew moomee tabax ko ba du féete gannaaw ci réew yi kooku responsabilité ñépp la kenn ku nekk da nga caa am sas woo xam ne danga ko war a def moo tax ay tomba ngi yoo xam ne ku nekk ci réew ku nekk moo xam njiit nga moo xam dañu laa jiite moo xam ne nga jiite dafa rëy dafa ndaw sa gis-gis xamal ne responsabilité du tuuti te it tomb yi kenn ku nekk war nga ko bàyyi xel ba ci jëkk moo di li nga xam ne mooy njariñul réew mi nga jiital ko ci sa njariñ li ñu tuddee intérêt personnel nga fexe ba intérêt public muy intérêt réew mi ci boppam nga jiital ko saa boo xamee ne ñaari intérêt yooyu teew nañ mu wóor la ne boo jariñoo réew mi loru kon bul jariñu te na réew ma jariñu loolu moo gën ci yow ci sa àdduna ndax bu réew mi baaxee dana la yóbbaale nga baaxle te su yàqoo itam dana la yóbbaale nga yàquwaale sa intérêt bu teew bii nga jàpp ne mën nga koo jariñoo ba noppi réew ma mën caa yàqoo bu ca réew ma yàqoo dana wëlbatiku yàqaale li nga doon yaakaar yow ñaareel ba mooy jàng ak yar mënul ñàkk ci am réew réew mu bëgg a jëm kanam mu mën a doon lépp loo xam ne doomu aadama da koy jàng réew moomee daf ko soxla ñu jàng ko ci jàngin woo xam ne du féete gannaaw jànginu réew yi nga xam ne dañoo bëgg a jëm ci kanam ndax kat adduna bi jëm kanam ba réew yi avancé ci wàllu adduna ba ñi di leen ñeetaan wala ñuy tàllal ay wattu sax di yalwaan fa ñoom dara yóbbuwu leen foofe lu dul am jom ak jàng ba xarañee ba noppi ngoo liggéey seeni bi ñu saytu ko teg ko ci aw yoon yoon wu leer la yoon wu baax la loola rek ci la réew yooyu jaar ba àgg foofee te kenn jagleelu leen ko nag du bunt itam buñ ubbu kenn ku nekk mën na ko yow jullit bi nag da ngaa am loo xam ne sax ñeneen amu ko sa diine ni mu la digalee nga tabax sam réew ba lépp baax ba doo des gannaaw daf laa digal balaa loola nga tabax doomu aadama ji ba mu doon koo xam ne ku am jikko la ku am njub la ku am ak baax la jikko ak jub ak baax nag mëneesu ko am te fekk defuñu diine ak gëm yàlla ci sa xol su loola xasee nekk ci yow loolu mooy indi ak sell mooy indi ak baax mooy indi itam ak njub xam nga adama contrôlé na la wala contrôlé wu la waaye da nga yëg ne sa borom tabaraka wa taala ci boppam moo lay contrôlé kon nit ki la ñuy tabax ba noppi doo tabax tabax yi nit ka nag la koy tabax moo tax lislaam daf ne nañ ko jàngal mu doon ko gëm yàlla nañ ko jàngal mu doon ko xam lu dagan nañ ko jàngal mu doon ko xam lu xaraam ba noppi nag lépp loo xam ne lu ñuy jàng la luy tax ñu xarañe am réew bu mën koo saytu mën koo yor ñu jàngal ko ko kooku suñ ca noppi mooy nekk citoyen boo xam ne bu sotti la boo xam ne fuñ ko teg aw yiw lañ fa teg fuñ ko jëlee itam aw yiw lañ fa jëlee rek bokk na ca tomb yooyee moo di bëgg sa réew islaam dëgg la day soññee ne li gën a rëy ci dunu bokk mooy ngëm yàlla day soññee ne ki gën a baax ci jullit yi mooy ko ci gën a ragal yàlla waaye nag loolu dàqonte wut ak fonk sam réew yëg ne yow fii nga bokk fii fi nga bokk moom la la yàlla tànnal say waajur amaana juddoo fi wala yow nga juddoo fi yaroo fi sunu borom tabaraka wa taala tànnal la ko sa ngelaw li ngay noyyi fii la nekk sa ndox mi ngay naan fii la nekk sa bëggeel ci sam réew dafa war a demee ni jamono ya ngay nàmp na nga fonke woon sa weenu ndey foo tiite dellu ca moom am réew noonu la war a demee ci nit ki moo tax nit ki lu nekk war na koo def ci ay effort fexe ba tiraangaam nekk ci am réewam ndax tiraanga foofu la tàmbalee waaye bu fekkee sa tiraanga ci bitti la nekk da nga gëm ne faaw nga jël say bagage tuxu dem tukki door a mën a am dara soo doo am dara kon ba tey dese ngaa yëg sam réew lim doon ci yow loola nag yow ndaw li des la cee war a jàppale nga jàppale ci sa bopp itam jàppale sa bopp gi mi ngi tàmbalee ci gëm gi gëm gi réew mi ne da ngaa war a bokk ci ñi koy tabax te fii nga war a toog tabax ko gëm ko feeñal ko ci sam njàng feeñal ko ci sa am jom feeñal ko ci sa yar ak ci sa teggin ak ci sa njub su ko defee ku lay jàppale mu daal di yomb ndax dana fekk muy jàppale koo xam ne ku am métier ba noppi la jàppale koo xam ne ku jàng ba noppi la su boobaa loola day daal di yomb lool rolu état nag door a ñëw état war a ubbil ay bunt ndaw ñi yoo xam ne danañ fa mën a liggéeyee waaye nag responsabilité bépp it tegewul ci kaw état réew moo dem mu mën a doon ci àdduna mu jëm mu jëm kanam xamal ne borom alal ya fa nekk dañoo participer ci réew ma ubbi ay bunti liggéeyukaay ndaw ña mën faa liggéey moo tax réew moo dem mu nekk mu jëm kanam boo xoolee li nga xam ne entreprise yi ay doomu aadama moom ñoom la ñuy jël ñu doon ay liggéeykat moo gën a bari fuuf ña nga xam ne état ba dañ leen di jël ñuy liggéey li fekk lu mel noonu amul nag réew mi luñ góorgóorlu góorgóorlu ak état bi lu mu góorgóorlu góorgóorlu day am lu des gannaaw kon bëgg sa réew googi day jaadu ñu xeex lépp loo xam ne xeetu tayeel la xeex lépp loo xam ne xeetu taxawaalu la xeetu yalwaan la lépp loo xam ne dafay taxa ñàkk a fonk sab liggéey ndax kat bokkul ci yëg responsabilité ñu ne la fii mooy sa bureau moo xam la ngay liggéey lu mu mën a doon huit heures nga war a tàmbalee liggéey nga xëy di dox say soxla ba dix heures nga jaar fa waxtu sàggam nga war a wàcc balaa waxtu waa jot ku dikk du la fa fekk loolu day bokkul ci yëg sa responsabilité bokkul ci yëg ne itam da ngay liggéeyal sam réew li ñuy tudde ger tam doon li nga xam ne àdduna jëpp moo leen jaaxal te mooy daaneel réew yi di leen delloo gannaaw képp ku yor responsabilité war ngaa yëg ne ger dafay yàq am réew dafay yàq barkeb sax alal moo xam alali nit ki la moo xam alali réew mi la fab alal joo xam ne moomoo ko fub jullit nekk fu nekk war ngaa yëg ne kooku mooy sa mbañ yow bu ñuy wax ne askan sàngam dañoo am mbañ jullit bi daa war a yëg ne mbañam ci boppam mooy lekk lu léwut saa boo xamee ne mi ngi koy def sooy boo xam ne mbiram gannaaw rek lay jëm waaye du mën a jëm kanam bokk na ci tomb yooyu nga xam ne fu waay nekk war nga ko bàyyi xel moo di kenn ku ne responsabilité bi la yàlla teg ci saw loos nga fonk ko fas yéene du yàqoo mukk ci say loxo ndax kat responsabilité ci boppam contrat la diggante kañ ko yan ak digganteem ak boroomam diggante kañ ko yan ak am réewam teyit lu mu fa def lu nekk histoire dana ko jël garde ko képp ku ñëw gis ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ci imaara muy jiite daf ne wa innaha amaana mu ne loola day ku ñu wóolu la ba jox la ko mu nekk kóolute wa innaha yawma alqiyamati xisyun wa nadaama mu ne ëllëg toraxte lay doon akuk réccu maanaam ki ñu joxoon responsabilité mu yanu ko nee na ëllëg toroxte lay indi ak réccu lay indi illa man axadaha bi xaqiha lu dul koo xam ne da koo jël jox ko place bi mu war a nekk jox ko ak xam wa adda alladi alayhi fiha li nga xam ne moom la ko ci yàlla defloo mu def ko ci kooka day bu ëllëgee moom du réccu bu ëllëgee itam du torox ci kaw responsabilité boobee ñu ko joxoon bokk na ci tomb yi nga xam ne képp ku nekk cim réew war na ko bàyyi xel moo di culture jàmm yëg ne fi ngay dund yow rek nekkoo fi da nga fee nekk yeneen i doomu aadama nekk fi yoo xam ne mën naa am yu leen wuutale waaye yéen ñëpp it am lu leen boole kii mën naa doon ku ñuul kii nekk ku weex kii nekk askan sàngam kii nekk askan sàngam kii nekk ci diine sàngam kii nekk ci diine sàngam kii ne ci tarixa sàngam kii tarixa sàngam kii kuréel sàngam kii kuréel sàngam ñoo ñëpp suñ noppee ànd doon ay nit ba noppi ànd nag doon itam ay sénégalais su ko defee loolu yi leen boole danañu xool nu ñuy def ba kenn ku nekk la nga nekk nga di ci dund nekk ci ci jàmm soo gëmee ni lu war a tasaaroo la nga di ko tasaare sa kem kàttan waaye lépp nag ci kaw jàmm ak ak fonkeel ci doomu aadama yi ngir doon gi ñu doon doomu aadama te yàlla dafa teral doomu aadama loolu bokk na ci yi nga xam ne dafay jëmale am réew kanam ndax kat am réew bu nekkul ci jàmm ak luñ bëgg bëgg bëgg a tabax réew ma la ñuy tabax ci fukki at mën nañoo xëy toj ko ci benn benn bis fekk ñàkk jàmm rek moo koy waral kon tabax jàmm ci boppam ci tabaxum réew ci la bokk gis nañ bi ay réew yoo xam ne dañoo rawoon réew yu bare bare bari diggante bu gàtt ñi dellu gannaaw loo xam ne mat na juróom fukki at ca gannaaw nga xam ne fii mu nekk nii tabaxaat ko loola la seeni nit di xalaat ñoom ñëpp wëlbatiku nañ xam ne jàmm dong mooy mbir ma képp ku amul jàmm ba noppi la ngay def lu mu mën a doon mën naa bañ a doon lu sotti kon borom bi tabaraka wa taala nee na wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqaab borom bi nee na wattandiku leen fitna ndax fitna bu ñëwee du yem ci bopp borom nit ka taal fitna ja moom ci boppam du ca mucc ka ci yoonam nekkul woon sax du ca mucc kon nag lépp luy taal fitna des koy daw des koy wattandiku noo ngi ndokkeel mboolem jullit yi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangu jaamu yàlla yi nga xam ne moom lañ doon def ci biir weer wi di ñaan borom bi tabaraka wa taala defar diggante yépp rataxal ko ba sonu askan nekk wenn askan yéeg itam seen responsabilité ci seen réew mi ba kenn ku nekk def la la war moo xam da ngaa jiite moo xam dañu laa jiite allahuma aiz al islaama walmuslimin wa adil alshirka walmushrikin ya da alquwati almatin allahuma ijmal allahuma ijmal kalimata almuslimin wa alif bayna qulubihim wa jannibhum alfitana ma dahara minha wa ma batan واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا واستعملنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم ادفع عنا وعن المسلمين شر الشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد